Sénégal njaay yi xawatina mbokki dëkk bu sell ba di Touba ak li ko wër seen jaaxle jeex na ci wàllum essence d'arsan waaw waaw bureau d'essence nekk ci Touba marché Ocass fañ naan marché fraude waaye nag route ba nga xam ne moom lañ duppee oro muy route d'oro waaw waaw xale yu baax yu yaru xale yi am fulla am fayda te nag nekk ay taalibe am respect lool ci seen i client waaye nag di leen jox wàcc waaye wi ñu yelloo ma ne yow mi nga xam ne da nga yor euro bëgg ko changé def ko CFA yow mi yor dollar bëgg ko changé def ko CFA mbaa sax nga yor CFA bëgg ko def yii ñaax ma ne waa bureau de change dañ la ciy taxawu nga def ko nam waree ngir jokkoo ak ñoom jokkoo ak sergent bii di Serigne Bakeloo ci 77 591 74 wala nga jokkoo ak moom ci 76 591 74 17 bureau d'essence nekk ca Touba marché Ocass marché Front les immigrants di Bawal sa c'est votre sens profitez-vous plus vite loolu laa leen wax de ma ne leen ku yéex ñàkk xale yi yaru man seenub liggéey moom dañ leen war di seeti di leen nemmeeku ndax ñooy ñi ko yor حمدا لمن يفعل كل ما أراد بقوله كن فيكون في المراد ñu yëgg leen xabaar yi mujj am ñeel diggante Israël ak Hezbollah ak lenn ci xabaar yi ñeel diggante Israël ak Hamas tolluwaay les derniers développements fi mu ne minuit jot na ba toftal ñetti simili mën nañu wax ne kon ñu ngi ci gaaw juróomi fan ci weeru octobre benn fan ci weeru rakki ñi ngi wéy wax ñu bëgg a dugg ci groupe Mouhalim Info yi te ñu faral di envoyer vocal na xam ne daal pour ngeen dugg ci groupe Mouhalim Info yi ci numéro yi rek lay mën a jàppandee 78 304 58 99 78 304 ku bëgg a dugg wala ku dégg ki wax ne daa bëgg a dugg ci groupe Mouhalim yi na xam ne bu jaaree a jàppandi te jotug di mën di lire message yi en temps duñu ko man kon jaar leen ci numéro yi moo gën a jàppandi 78 304 58 99 bi ngeen ko jaaree incha di ngeen dugg kon ñu xabaar yi e, ñeel li am fële ca Moyen-Orient dañu koy tàmbalee ci ñetti soldat yi réewum Israël yu faatooti wala bokk ñaar ñaari soldat yi réewum Israël yu faatooti yi bokk ci brigade Golani ab attaque nag bu bawoo ci résistance islamique bu nekk ci Irak moo leen faat du Hezbollah de ña nekk ca Irak ñoo def effet amalub attaque ci soldats yu réew Israël dox eh, daal dajaloo woon ñu attaqué leen ñett ki ñoom ñaar ñaar maa ngi jum naan ñett ñaar ki ñoom faatu ki jamono ji nga xam ne itam Hezbollah mi ngi eh, eh, Hezbollah mi gën a taral opération yi muy amal fële ca sud bu Liban di faire face ak waa Israël jamono jooju itam nee ñu Israël mi ngi waajal gën a yaatal opération yi muy amal ci sud bu Liban ci fan yu ñu dëdmal xeexoo yu tar dox na seen diggante ñoo ñaari wàll yi waa Israël nee ñu mi ngi waajal ngir yaatal opération terrestre bi ndax xam ngeen opération bi nga koy tàmbali daf koo tàmbali euh, par limité maanaam opération limité la yenn wara yi rek la yombugul ci ñoom nag yombugul ki ñoom waaye nag daal ne ñu ngi waajal ngir yaatal ko armée Israël loolu la ñuy waajal buñ sukkandikoo ci Al Jazeera Xasan Xaasim Safiddin ndax faatu na waa wala déet moom mi ñu wax ne démb bombardement yu tar ya Israël doon def fële ca euh, banlieue bu Beyrouth capitale bu réewum Liban moom lañ doon visé pour sukkandikoo ci autorité israélienne de reddivision li nga xam ne daal moom la Israël jàppagun ci li ñu xayma ci attaque googu mooy Xaasim Safiddin faatu wu ca en tout cas daal am na cay gaañu gaañu waaye daal benn donnée buy firndeel ne faatu na ci mbir ma moom nee ñu amul buñ sukkandikoo ci autorité israélienne euh, euh, buñ sukkandikoo ci autorité israélienne de la de reddition ñoom daal ñu daal di xam loolu xamle loolu Israël nee ñu buñ sukkandikoo ci seen israélien treize cabinet de sécurité bu Israël jël nañu dogal tontu waa Iran amal attaque ci ñoom monte day Iran dànkaafu woon na leen waaye Israël day demel ne loola moom jël na dogalu amal ko mooy daal nee ñu jël na dogal ngir attaquer réewum Iran conseil de sécurité ba maanaam daal seen mbooloo seen kuréel gi wàllu gu ni mel cabinet de sécurité bu Israël daal dinay valider ngir ñu amal ak tontu ci Israël ci ci Iran bokk ñoom waa benn responsable américain bu yëkkati kàddu CNN yëkkati CNN kër Cheikh a gu nekk ci moo xamle ne am na benn responsable Amérique bu leen xamal ne ci li ñu gisagum mooy Israël moom attaque bi nar na ko amal waaye dara daal luy garantir ne Israël dina cibler installation nucléaire yu réewum Iran moom amagul en tout cas nar nañoo fayu waaye nag cibler installation nucléaire yu réewum lu koy firndeel amagul Joe Biden nee na Israël am na droit fayu am droit tontu ci attaque brutale bi ko Iran def ak bi ko Hezbollah def ak biko ko di def muy xaw si yoona yi waaye nag il faut être prudent o boog Israël faw mu ànd ak prudence ci loolu am na droit fayu nag sañ na ko sañ naa fayu de waaye nag na def ndànk ci loolu loolo Joe Biden wax sañ naa fayu waaye fayu googi na ci def ndànk Wall Street Journal ñooy xam le ni ci li ñu gisagun mbir yi fi mu ne nii mooy Iran bu jëlaatee dogal di attaqué waat Israël dina doon attaque boo xam ne mooy gën a dangereux sax bi mu amal ñuy njort ne daal bu attaqué waatee Israël dina ciblé ay infrastructure civile xam nga moom Liban attaque bi mu defoon ay warabi ay base militaire barabi jumtukaay fi nga xam ne daal fa la jumtukaay de guerre nekk fa la ñu fi ciblé woon val valeur day nee na ci mbir mi ni muy demee daal li muy firndeel mooy Isra Iran bu dee tontuwaat bu dee attaqué waat dana doon attaque boo xam ne mooy gën a dangereux bi mu defoon te sax daal boobu ña ngay njort ne kon infrastructure civile la euh, Iran di ciblé bokk na ci warab yi am solo ki ñoom bokk na ca bokk na ca li nga xam ne moom la kilifa gi nekk kilifa arme bu réewum Iran wala bokk ki topp ci kilifa gi arme Iran li mu xamle Ali Qod Qodwi wala Qodwi nee daal bépp cible boo xam ne Israël def na ko ci lu ñeel Iran Israël mi ngi ci risque daal di dispari maanaam daal jaaxe jaare fa nangi faaw un commandant artien kon bu gardien de la révolution mooy arme bu réewum Israël arme bu réewum ne day attaqué Iran nga xam ne Iran dina ñëwaat ak moom attaqué ko boo xam ne bi yoon moom fa lay jaare nangi faaw mooy dina attaqué centrale électrique ak mbooleem centrale yi nga xam ne mooy rafine pétrole bu réewum Israël bu Iran di attaqué waat central électrique lii tax Israël mën a am courant ak centrale ya ak warab yi nga xam ne ci lay raffiné seen pétrole yi ñoom Israël nañu xam ne Iran ci la jëm kon loolu day tëggal lii Wall Street Journal wax ne bu Iran dee tontuwaat Israël bu fekkee am na la ñu gën a jot mooy bi yoon mooy gën a dangereux ndax Iran ay infrastructure civile la nar a bu nu jógee ci loolu ñu wax ci kàddu ñu wax ci lii bawoo ci ansaarullah ansaarullah nee ñu dafa am ay agré ay avion d'agression yu amerique ak Angleterre yu lancé ay raid tey ci reson fi nga xam ne mooy Jabana soriwul noor bu Hudayda kon nag dëggal nañu ne Amérique attaque na leen tey jii waxe ne Amérique la ak Angleterre mais Angleterre day wedd nañu ne ñoom attaque bi am tey jii seen yoon nekku ci defuñ ci dara maam daal ah, tey moom attaque ñu li nga xam ne am na dugg lañ ci seen loxo maanaam daal ñoom mbir ma la am du ñoom waaye Amérique ko def. ñu dem ca Bandagasa waxoon na leen démb lu ñaaw lu fa Israël defati Tulkiram Tulkiram nag ma nga ca Cisjordanie ah, occupé ñu bari lañ fafaat faat lu war a ci dix-huit personnes. Israël dal di visé benn café faat fa lu bëree bëri am foo ay ñi di dajaloo di saaru restaurant gi caaju rek ñooñee ñëpp nañu tegaloon li ñu tegandoo nii ngeen di gis ci di leen jullee di lu doy waar ñooñu ñëpp la ñu tegandoo ci ngeen gis ci image yi di di wéy di firndeel ñaawteef wa Israël nekk fële ca Bande Gaza ma ngay wéy Israël mi ngi ci digganteem ak waa attaqué ay ay ambulance lan moo tax mu nar koo def lu ko ci xiir en tout cas Israël ma ngay menacé attaqué ay ambulance ci xeex bi dox diggante mag waa Hezbollah mën naa mu attaqué leen bombardé leen de ba noppi ne combattant yu Hezbollah ñoo ci nekk ndax yu mel noonu moom def na ko ca bande Gaza bàyyi leen ci xel. Amérique fas yéene dimbali Liban buñ sukkandikoo ci Anthony Blinken secrétaire d'État américain à l'extérieur nee na. lu war a jege cent et un millions de dollars dana doon ndimbal lu yees bu ñu fas yéene dimbalee population yi nga xam ne dañoo loru ci conflit bi dox ci diggante Israël ak euh, Hezbollah fële ca Liban ak ci bi ci région boobu daal lu toll ci cent cinquante sept millions de dollars Anthony Blinken nee na moom la Amérique nam ma génne ngir dimbalee ko ña fa loru foofe la am tey jii résistance islamique ba nekk fële ca Irak def ko bokk ci kuréel yi nga xam ne itam Iran moo rek seen ginnaaw Abu Obayda ki nga xam ne mu yor kàddu Kataybul Xassam ma nga ciy génn di ca wax di féliciter opération boobu nga xam ne résistance islamique ba nekk ca Irak def nañu ko nga xam ne jur nañu faatu ak ñoomee gaañu gaañu bokk ci ñu bokk ci euh, euh, soldat ci unité bi ñu wax Golan wala bokk ma nga ca gola bokk ca Golan lañu ko amale faat ñetti soldat ci réewum Israël ak ñoomee gaañu gaañu Abu Ubeyda ma nga ci félicité résistance islamique ba nekk fële ca Irak ba tey ci xabaaru di ci mu àll bi foofu armée daal di nay xamle ne lu toll ci soixante dix soixante dix roquettes sànni nañ ko tey jii mu jege Liban dëgmal seen ay suuf lu toll ci soixante dix roquettes daal nañ koy daaneel tey jii gis nañ ko ci seeni i jaww te daal lu ñu ba sànni la mu bawoo ca euh, Liban dëgmal leen. réaction Emmanuel Macron ci bi ñuy ubbi sommet francophonie fële ca France nee na daal ñun addina bi ñu bëgg fi mu ne nii mooy àddina boo xam ne ñi ko jiitee dañuy wattandiku di wax ci wàllum deux pois deux mesures addina bi daal fi ne li mu laaj mooy deux pois deux mesures wuru fee am loolu day waxee Emmanuel Macron la nee na daal deux poids deux mesures amatul place ci addina bi nañu yemale ñëpp loolu daal la ci Emmanuel Macron wax peut-être Amérique la bëgg a waxal rek seen taxawaay ci diggante Russie ak ak tax seen taxawaay ci mbirum Israël fële ca Liban ndax kat xam leen ne Liban ak ak France dañoo am ay alaqa yu yaatoo yaatoo yaatoo foofii Erdogan nee na lii am ci Moyen-Orient bi occidentaux yii kenn du demul ñu des seen loxo dugg na ci bu baax a baax a baax li Israël di def ndax kat ñoom ñoo jël arme jox ko ñoo jox Israël arme muy dëkk di toroxal bu baax a baax askaru Bandagasa ak Liban kon li am ci àddina bi li am fële ca Moyen-Orient Occident bi dañ cee participer bu baax a baax kàddu yi bawoo ci euh, tay Recep Tayyip Erdogan kon ma nga ko du ci Mouhalim foo loolu mooy dernier développement yi yi mujjee am ci diggante ñaari wàll yooyu ci kanam-kanam sax di ngeen koo amaat ak Oustaz Chérif Mballo sur Mouhalim TV waaye daal kon guerre baa ngoog ñaari wàll yi wéy di jàmmaarloo njort yi nag fi mu ne mooy Israël mi ngi waajal attaqué Liban mi ngi waajal attaqué Iran bokk waaye ni Iran di waxee day bu dee noonu la ñu koy defee bu Israël attaqué bu ko Iran tontuwaatee mën naa doy waar ci moom lool ndax Ali Khamenei wax na ko kilifa réewum président bu réewum wax na ko ki jiite armée Iran wax na ko ki topp wax na ko ne daal Israël bu ne day jéem a report jéem a répondre ci li ñu ko def bu ñuy ñëwaat du ko nettali. ñu jox leen dig daje ba suba ak jàmm incha allah rabbi seen kolté mooy sunu sax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu taamu leen seen groupe Mouhalim Info ak sunu ay mbooleem plateforme Mouhalim TV mooy sunu chaine YouTube lépp luy information général religion politique culture société Mouhalim Info moo leen koy traiteel ci anam yu fiable leer na wóor na boole ko gaaw na l'information sur sur Mouhalim TV ba tey mën ngeen abonné sunu page Facebook ngir lépp luy information waaye tamit Mouhalim moo ngi TikTok ngir lépp lu jëm seen ay information dangeen koy am si sunu mbooleem plateforme saa su ne